voilà merci beaucoup suñu suñu doxu ñaxtu bi tey lu ko waral mooy ne dañoo commencé suñu ay cours fii nii yenn yenn établissement yi commencé nañ ay cours mais étudiants yooyu noonu nekk ci établissement yi dañ nekk di dund ci ay jafe-jafe yu metti yeneen établissement yi boobu ba léegi ñu ngi xaar ñu ubbi campus sociaux yi parce que ñoom au moins sax euh, am nañ yëg-yëg ci dund étudiant bi ñu ngi xaar campus donc deux deux conséquences am na foofu ñaari ñaari mbir yoo xamante ne nii lu ñu naqari la maanaam étudiants yi fu mu toll nii ñuy commencé cours ñoo ngi dund ci conditions yi très difficile amuñu fu ñu lekkee am ñoo xamante ni dañuy dañuy def ay jaabante entre partout ak Thiès ñeen euh, yeneen euh, établissement yi ñoom bëgg nañ démarrer seen cours parce que dañoo war a a commencé teel a pare mais ba léegi mun ñoo commencé ndax ubbiwuñu campus yi donc loolu moo waral tey à la suite suñu dernière intervention bi bi nga xamante ne amul benn benn résultat ñu ñëwaat defaat suñuy marche pour wane ne ñun ñun ñoo ngi fii tant que problème mu ngi fii am ñun dinañ dinañ dinañ ko xeex ba keroog muy muy ñu koy saafara. voilà ngeen yooyu ak cours yi. voilà ak cours yi mooy lu ma wax nii rek dafa metti trop étudiants yi dañuy def ay ay jaabante amuñu fu ñu nekk di dund di euh, di fayal seen bopp. lekk te c'est trop ak moment bi nga xamante ne ni amuñu bourse ñu jindal seen bopp euh, ndekki di jëndal seen bopp añ di jëndal seen bopp reer alors que ñoom ci kut lañu sukkandiku pour le moment pour mën a am loolu lépp ñenn ñoo xamante amuñu fu ñu nekk dañu obligé du jógee fu ñu dëkk que ça soit mu doon Dakar wala mu doon fu mu munti nekk di xëy di jàng si fii te parfois sax dañuy ñëw en retard du ñu concentré wu bu ñuy jàng parce que condition yooyu noonu dafa jafe. Dakar la ñuy ubbi yéen waaw dégg nañ ne waa Dakar suba la ñuy ubbi mais ñun joxuñu benn information bu fiable par rapport ak ubbite euh, suñu campus. gis nañ ne ministre bi tamit génn na ministre tutelle bi génn na si tele bi ba te ñu ay promesse mais waxul ban jour la campus yi du tijji def na rek fii ak fan yi néew mais fii ak fan yi néew du quelque chose du mbir moo xamante ne nii précise na donc moo tax ñu bëgg ñu ñu ñu wax ñu kañ le campus bi du tijji précisément pour ñu mën a jël suñu. toll si projet kuréel kuréel bi centre régional projet kuréel bi boobu ba léegi ñoo ngi dégg ne ñoo ngi ci mais amul luy firndeel ni ñun moom nañ suñu bopp instant bi ba léegi ñun dañuy sukkandiku ci Dakar donc question boobu tamit lu ñu war a régler la lu ñu war a saafara la te ñu mu gën a gaawee ndax moom moo indi jafe-jafe yi ñu jànkonteel moment yi ñu